kenn ku nek ci turam ak santam di ñaan sun borom tabaaraku wa taala sun kaddu yi fekk ñepp ci jamm mbokk yi mbokk yi tay dañoo bëgg di ñew ci président Macky Sall euh lim wax démb ci conseil de ministre ngeen xamne mom dama bëgg na ngeen ngeen jëfëndiko seen xel te xool ba xam maanaam euh, Macky Sall lii mu def nii lu tax mu def ko ndax da koo def pour dundal démocratie wala ndax da koo def pour gën a jàpp ne jàpp ne luy gën a néewal doole procès Pastef la wala da koo def pour yërmande. wàcc ci ñoo ñooñi ñooñi nga xam ne naqar wu ne teg na leen ko ci kaw teg ko seeni mbokk déedéet mbokk yi Macky Sall da koo def ngir dañ koo sës ci miir bi Macky Sall jaaxle moo tax mu def ko de mbokk yi Macky Sall fi ñu toll nii maanaam moom moom moom sës giñ ko sës ci miir bi maanaam ngeen ngeen ngeen yaakaar ne fan la mën a jaar ba génn ci ci ay pexe dong ci la nekk limi wax lepp gëmu ci dara démocratie itteelu ko li ko itteel lal ay plan yo xamné né tay bu démon bu dafi jogé yit garantiel am ku koy remplacer ko xamné dara ko garantel mom ak ñim andal waye dama yaakaar askan duñ nang lolu ma ngi yaakaar na itam ñom Khalifa Sall ak euh, Karim wad yaakaaruma ne danañ nangu rek ñu ñu lu ne toroxte ju ne ñu teg leen ko ba xëy xëy rek bëlëf bëlëfee ne leen ne leen yéen kat nun dañ dañ leen ëppoon doole wan lan leen ko tey tey tey lan lii la ñuy def loolu yaakaaruma danañ ko nangu ndax Macky Sall moom ay loi ak règlement tëgg ko ndax CEDEAO nee na woon atteb Karim Wade ak kat atteb Khalifa Sall dara jaru ci yoon te booba Karim booba Khalifa Sall booba Macky Sall dégluwu leen de dégluwu leen de parce que déglu leen intérêt am nekku ci déglu leen déglu leen intérêt askan wi nekku ci bon kon damaa bëgg ngeen xam ne gis ngeen euh, Macky Sall jaaxle dong moo ko dal leneen dalu ko bu leen jàpp ne leen na ko dal déedéet daa jaaxle rek xamul bu muy jaar te sës nañ ko ci miir wi xamul bu muy jaar te xam na ne assemblée nationale bi amatu fa majorité fu ne président mi ngi ko fay jóge mbokk yi man de maa ngi jàpp ne dégg naa am na ku ma dégg démb porte parole PDS mu wax lu am solo ñoom waa PDS révision de la projet la ñuy laaj te noonu askan wi yëpp loolu la ñuy laaj askan wi yëpp ma ne projet bi dañ ko jëlaat teg ko ci kaw taabal ji ndax yaar dong moo mën a am ñu euh, ñu jël ko teg ko ci kaw taabal ji at teg ko ci yoon milliards yi nga xam ne moom lañ moom lañ leen moom lañ leen euh, euh, tudd ne ñoo dañ ko jël askan wi mu dellu si wala mënut a nekk dëgg ñu ñu ñu indemniser leen. kenn ku nekk tëj bi ñu la tëjoon ak ak ak sa time bi ñu wasin woon ci naat ñu fay la ko mbokk yi askanu Sénégal ñoo laaj loolu askanu Sénégal ñoo laaj procès bu jaar yoon boo xam ne ne amul ay ay ay indami amul ay ay ay ay jéggal ak yooyu yëpp déedéet Macky Sall moomoo réew mi bay jéggale ci ku lekk seen alal Macky dañ la fa val eh, yow yow yow doole nga nga jaay nga leen jaay jaay ko askan wi askanu Sénégal nga jaay doole parce que yow boo demee boo leen tegee lépp lu élimination boo yaakaar ne lépp loo xam ni jàpp nga ne mën nañ laa sonal nga éliminer leen ca dem dem dem bañ sës ci miir bi nga wëlbati ko ñëw naan danga nañ nañ leen nañ leen baal non loolu yëpp askanu Sénégal munu ko weesu yëpp askanu senegal mënu ko weesu mbokk yi man de man de waaye nag ah kenn ku nekk sa xalaat mais man damaa jàpp ne damaa jàpp ne ñoom Khalifa Sall ñoom li ñu war a bëgg mooy procès yi jaar yoon te bu jaaree yoon dañ leen di quitter dañ leen di quitter indemniser leen parce que lu tax mooy yéen ñoom seen procès lépp lépp dañ ko violé de début jusqu'à la fin li violation de la loi la violation de la loi moom lañ moom lañ mës a doxale ci seen kaw léegi nag Macky Sall amul choice léegi laaj leen li ngeen war a laaj seen i droit ak seen i devoir laaj leen ko ndax Macky Sall mii amul fenn fu mu mën a jaar ba génn ci déedéet gis ngeen fii ni toll nii daa li mu bëgg mooy ba jéggal leen ba pare wëlbatiku pere seen député yooyu dolli ko ci ay député am Macky Sall ko dama ne Macky Sall ñun gënoo ñoo yeewu de man ngaa nekk président de la république nag waaye gënoo noo yeewu yow li nga da dem ba nga xam ne wóor na la ne amoo menn pexe mënoo gouverner te soxla woo waa waa opposant yi tey am na ñoo jàppoon ci koñ nga ne ñooñu nag ñooñu dong laa mën a fexe ba réconcilier ak ñoom récupérer leen loolu dong la de mais du leneen defoo ko ngir njariñal askan wi defoo ko ngir seen njari ñom ñoñu defoo ko loolu moom leer na mom tay xamna nak nit ku nit ku nek war na ma nangul limay wax defoo ko pour nga jariñul askan wi defoo ko pour njariñul ñoñu defoo ko pour akka gis yelebu doomu adam déedéet Macky Sall yaakar na ne population Sénégal duñ la ko nangul waye nak ah Sénégal de moy rew mo xamne ni kenn mënu ko xalaat fi ngay xalaate ci nit ñi nit ñi waye man de bu doon man la damay leer na duduk dundo dotu dootuma dundat bu kon bu boobaa man damay lank lacc samay droit ba ci ba jot ci ndax fek lan 2024 dama wala dama wala retourer samay droit ci rew mana mana poser candidat mana wate mana anda kuma neex te te kenn du ci forcer li nak bu ngeen ko nangoo li bu ngeen ko Macky Sall da di récupérer parce que leen leen da len ay yéen kat man maa leen jéggal da ngeen di ñëw ànd farak man par force parce que man maa leen maa leen jéggal bu ngeen ko nangoo rek mooy mooy dem ngeen fekk fekk Macky Sall kon li ngeen doon bañ ba jàpp leen te ci kaso kon da ngeen ko war na teel nangu bu ngeen nangoo njéggal lii ñu leen di proposé kon da ngeen a war na teel a nangu balaa daraa xew bala ngeen a dem ci kaso kon li kon yéen xamu leen dara xamu leen fu ngeen teg seen tànk parce que da nga la nga bañoon dong nga nanguwaat Macky Sall ay ay calcul politique dong la ko defee defewu ko leneen amul leneen lu mu ko defee calcul politique rek. mbokk yi euh, mbokk mi ma bëgg a na en vidéo de maanaam euh, live bi dafay gàtt xam nga dama sama man man xam nga gëj nga maa live sax mais dafa am loo xam ne boo ko déggee il faut nga wax ci sa xalaat xam naa nañ bàyyi ba beneen yoon rek bu ñu waate live normal euh, incha allah dañ danañ danañ def niñ daan def. di ubi ligne bi léeg-léeg mbokk yi Macky Sall xel mu xel mu neex bi muy jaay jaay sénégalais yi di wéyale seen ak ak seen droit rek waay bu len ko ko may. man nak man ah, Karim Wado Khalifa Sallo buñ ko nango buñ ko nango xamuñu buñ rek seen tank parce que ñi li dañ ko war na nangu kon duñ dem ci kasso bi buñ ko nango rek dañoo dañoo lañ lu wacc won lañ ñew lekkat ko. parce que li wér te wóor mooy lii buñ buñ nangoo réconcilier ak moom rek bu boobaa buñ ko nangoon ci njëlbeen ko duñ dem ci kaso bi waa est-ce que ñoom nii ma ko xamee xamee nañ ko noonu mbokk yi Sénégal maanaam góor na góor noo xam ne nii kenn intérêt kenn nit dong la kenn nit kenn nit mooy dogal loolu senegal dong la am ci beneen réew intérêt boo xam ne ni maanaam moom moy toog daal quelqu'un ba xalaatam xalaatam xalaatam xalaatam daal ci la ci lay ci lay doxee réew bu arrangé population bi baax na su leen arrangé wut baax na te musta andi na quelqu'un boo xam ne arrangé na population Sénégal musta am musta am quelqu'un boo xam ne amal na njëriñ population senegal amut lépp ba ma Macky Sall nekkee président de la République ba léegi mbokk yi ay waay ay waay ay waay képp ku mën a waxtaan ak waxtaanal xam naa dinañ jot sama vidéo koy jot man leer na mané ne li may wax ñepp koy jot ñom ñoñu même président de la république da koy jot dama né président de la république da nga xamné Sénégal bokkul ak réew yi réew yi droit yi rek da nga xamné yow yow Sénégal mën ngaa violer seeni droit te duñ ci man dara waye bu doon réew mu jaar yoon la doko sañ doko ko parce que xam nga né boko défé population bi jog dal ci sa kaw te kon doto ko def mukk waye nak Sénégal moy réew mo xamni ni Sénégal le pays de la teranga dedet le pays de la ñàkk ñàkk ñàkk pexe kay xanaa waaye teranga kay xanaa am réew bala mu ko am xanaa kenn ku nekk da ngay mën a xëy am loo xam ne mën na la dépasse waaye euh, euh, euh, population boo xam ne nii ku fa xëy doo boo añee doo reer lañ leen di fay ña fay liggéey ku néew lañ leen di fay amu ci kenn ku mat ndékki ak transport amu ci ña fay liggéey ku néew amu ci kenn koo xam ne nii lañ lay lañ lay lañ lay fay man nga ci am transport un mois man cee ndékki un mois waxuma laak nag añ ak reer loolu lañ leen tegal ma ñew nak ma ñew nak ci ciment ak seray bi mu seer lan moko waral bokki man loi daf dof war nga xamne yalla mayna ma experience tout ci aduna xam ngeen lan moko waral moy ñun ay gouvernement lañ amut parce que lutax moy gouvernement lan moy gouvernement bo xamne ni euh manam l'homme qu'il faut place qu'il faut mo fay nek euh xam ngeen ne sokasi mo fa nekkoon at yi di jay ciment bobu booba ciment parce que lutax moy soko sim amul woon concurrence mais au moins jéemoon na samo ak ak ak ak aqu ñi eh, eh, dekk ci rewmi bon tay ni dama joxe ben exemple tay ji ni bu buñ doon tabax fii ab ab supermarché fi, ci Afrique du Sud ma dem fa ne len dama fee bëgg magasin dañ nan ma loy jay ma wax leen li may jaay ñu daal di xool ne tak tak tak ci compétiteur bi ne ma ne ma yow li ngay jaay ñaar dèjà ñett nit ñett nit accordeel nañ ko ñett nit kon kenn du la ko mën a accordeel xoolaatal la neen looy jaay parce que yéen duñu leen fi nga wa nga ngay jéem a jaay nee xam xel naan leen dimbale ma rek ma dimbale ma rek ma am fi place parce que man portable laa bëgg a jaay ñu ne la non mënut a nekk parce que yow duñu la fi jox place léegi ñii fi nekk boobaa ñoom mën nañu am problème mu dee duñ fay parce que lu tax mooy def nañ andi andi nañ bi loo xam ne nii euh, offre bi moo ëpp demande bi loolu duñ ko def waaye Sénégal dañoo fekk loo xam ne nii ñaari usine gën kaa bari doyoon na fa ñi def ko ñetti usine léegi ñoom nan lañ fay mën a amati bénéfice il faut que ñu seeral seen li ñuy liggéey il faut que ñu seeral ko parce que lu tax mooy mu dañoo mënta liggéey ñoom ñëpp di am bénéfice ñetti usine ñetti usine ci senegal ci réew moo xam ne xëy ñu gontuñu mais loolu moo jëluut moo tax ciment na ngeen ko xaar mu gën a seer loolu sax wallaahi asim li ñuy wax nii naan fixé nañ ton nangam nangam kee dugg nangam nangam dëkk sangam nangam nangam loolu yëpp dara du ci dëgg dañ leen koy naxe dong parce que kii liggéey di du liggéey di perte de du fay du fay ay emploi bu fay di perte ñaata du dangotee nga nee tëj na dangote sax dangote sax man lu ko indi Sénégal moo ma jaaxal xam naa rek nax nañ ko rek ba yàq alalam nee naa leen Sénégal man bu ma gisoon ku yor ay milliards bëgg koo investir du ma ko yóbbu Sénégal parce que wax dëgg yàlla bëgg maa yàq alali kenn parce que réew moo xëy na xam na xëy ñu boo fa yóbboo entreprise da ngay da ngay yàq alali jàmbur rek da ngay yàq alali jàmbur gis ngeen dama ne ñaari usine gën kaa bari yu ciment doyoon na senegal ñu mën a liggéey fay seeni emploi am bénéfice way legui lu lu ñaar nit waroon a liggéey nga liggéeyloo ko ñet ñett ñom ñep lan lañ man lan lañ cey mëna amé bénéfice bu leen jari wa jox na leen exemple legui néna leen tay ji ni buñ doon tax fi ab supermarché nga xamné bo gisé gisee ñi xëy gont rek man nga dem demandé fa né leen né leen dama fi bëgg boutique dé ñu ne la wa legui yow bo amé boutique bi ñu la fi bëgg jaay nga wax leen ko ñu ne la non dèjà kooku accordel nañ ko 3 personnes té duñ ko accordel 4 personnes parce que bu boba yeen ñep dootu leen man nga am problème effectivement lool moy dëgg te am réew mu normal noonu lay doxe waaye Sénégal doxewut noonu Sénégal gis nga la nekk giñ naa ko ci yàlla ne ah, ma am bëkk dem rek laa nu waxtaan ak benn waaye ma ne ko man lan 2004 ñibbi woon naa Sénégal mais lan moo ci mujj damaa perte ba daanu ci suuf dara yoreetuma ko ba ma fay jógee kon Sénégal képp koo xam ne dangaa dof dof lu ba ñibbi ñaata nit ñoo defoon départ volontaire Italie ñibbi Sénégal yor ay millions yu bari ay 30 millions ay 40 millions ay ñoom ñëpp dañoo daanu ba takk suuf parce que réew moo xam ni kenn xëyu ba kenn gund boo fa dee jaay kan mooy jënd kan mooy jënd mbokk yi Sénégal li feeg li feeg jéemu ñoo xool l'homme qu'il faut à la place qu'il faut réew ma du dox te loolu gisaguma ko fi sant ba léegi nag gisaguma ko Sénégal dama ne dama waxtaan ak sama benn mbokk bu dëkk Thiel ma xam ma ne ko man de bi ma mujjee Sénégal damaa jaar cil ma xam damaa damaa damaa damaa yéemu damaa toog suuf xalaat cil ma xamoon ay soixante dix huit soixante dix neuf quatre ba quatre vingt quatre vingt nga xam ne jullit dañ daan fanaan si dimanche ak ni mu xumbe woon ak ni mu développé ak tey jii nga xam ne boo fa jaaree day mel ne ay armel dara yëngu ba non Sénégal ni mu ni mu da dafa dafa yéeme sax. mbokk mu ñoo ngi lay siyaare Bas Bas Thiam Bas Thiam eh, Thielmaxa la dëkk mu nga Italie Bas Thiam ñoo ngi lay siyaare bu baax maa ngi tudd sa dëkk ba de eh, gis nga gis ngeen Sénégal arrière gi muy arrière day gën a continuer parce que lu tax mooy dañ koo gouverner wat ci yoon ci xelum kenn nit lañ koy gouverner parce que li li mosu a gis ku toog ci plateau télévision jël xalaatam teg ko ci taabal bi xalaatu président de la république la indi président de la république nee na nangam nangam walante président de la république waaye mais kon kon moom moom moom mu toog ñu fal ko ministre wala ñu fal ko leneen moom moom ana xelam moom ana am xelam. am xelam kon moom moom daal am xelam seen amul njëriñ population Sénégal te loolu mooy xew Sénégal nag sant ba léegi ku la fal maanaam moom yow la ngay def lépp intérêt am dong lay doon mais du doon intérêt intérêt askan mbokk yi ñoo ngi leen di siyaare kenn ku nekk ci turam ak santam damaa jàpp ne li may wax nii nit ku nite ku nekk mën nga ma koo nangul mooy Sénégal moom ni muy doxee li fi yëg jógu ba ñetti junni at ci kanam day gën a waaye du gën a du gën a avancé wasalaam jërëjëf